maa ngi daan fekki mais c'est la première ma siyaare sama dëkk moo tax kontaan naa ci trop tey. waaw par rapport ak carrière bi mu def fekki bi mu am si lamb am ko si sport ba français la ko léegi. diaspora bi étranger yi ñëpp xam la loolu lan moo koy may sportif encore une fois. mooy discipline. waaw hygiène de vie bu baax. waaw defar sa image. defar mbër du dof. parce que image bi c'est international. <laughs> donc kon da sàmm sa image ba nga xam ni. amna na ñoo xam ne boo leen tuddee rek dafa leen di classé. dëgg la te nekk kilifa du at yu bari. dëgg la nekk kilifa moy nga sàmm sa image. waaw ba képp ko xamanteni même du sa supporter sax daf lay respecté. daf lay respecté waaw. motax damay sam sama image sam sama cadeau waaw sam parce que signature contrat dañ koy xép waaw mais ay kilifa ñuy sétane deug la té wax lo xamni dañ lay xép kilifa tok saalam te nga wax mu dar gi gémmiñam lolu wax ku nek war na koo war na koo moytu. bo ma ku ko yar. waaw ma ngeek sama wajur mais ndem ci yalla ci pap moma yar. Pape Dia moo ma yar bu baax si communication. bi maanaam mën nañ ne wax. moo ma yar si jikko moo ma yar si communication parce que face à face njëkk yi dama noo bëgg a sax mais fa toog lay toog ne ma nii. ma bëgg xam ne ma nii. Mm-hmm. ma ko doon déglu nag bu baax a baax. loolu moo des ba léegi si man. mais doo dem te laajuma la si Modou Lo ak taxaw na coow li bëri. mais làmb coow la. làmb coow la problème de war naa ne ñu ne warta ne. làmb yëpp mën a nekk. gis naa ñaari joueurs yi bokk ndey ak bay kii di football championnat bi kii di football championnat bi ñu rayante demaat xam nga les sœurs Williams dañ doon tennis ah, ay sœur lañu dañ doon dañ doon rayante si tennis mhm. te ay mag rakk lañu mhm. kon Sida kii luñ bokk. ak way bokkuñ dara dañu war a bëri. Mhm. waaw les frères ganaye. voilà. waaw kii nekk allemand. waaw kii nekk euh, jël nationalité ganaye. jeex na dañoo daje rayante coupe du monde. voilà. lamb ak coow a ànd. lambak ak coow a ànd lamb am na coow mais amul problème. kon coow li ñu doon coow fan yi Bombardier ci digganteem ak Reug Reug loolu bi ñu ko déggee toog sa kër jàpp sa njaamur la moo tax waxoo ci. waaw parce que moment wu wax dafa am ak moment wu dal. waaw nit ñi da leen bàyyi nekk wax ni mu ko xalaatee. mais man xam naa sama bopp. Mhm. moo tax mhm. du ma ci wax mu ngi sama mu ngi sama ginnaaw. mu sa ginnaaw mais le premier bi incha allah. le premier gaa yaa ngi xaar. dama bëggul bëgguma ñu gise ma si lu passé lii. Ah, li passé bëggoo ñu àttale ci. def si code. <laughs> kon nañ ci def